leeral tu TV te mooy jox lii di askan wi xibaar yu leer wér wóor te teg ko ci màndu day indi li nëbb woon askan wi jox leen ko ci réew mi ak biti réew wax jépp day woddu del topp tey abone tem boole kook déglu partage tas bépp gox lu ñëw de bum yendu partage tas lu ñëw de bum ci mboolem banqaas yu daaray islam international une heure du matin tegal na cinquante minutes masjidul aqsa sun jumaa ju tedd di tirim Palestine deux heures du matin tegal na cinquante minutes ca masjidu ay suufiya ca Istanbul ca Turquie masjidu Quba ak masjidul qiblatayni ak masjidul haram ak masjidu nabawi jumaa yi salaa salaam ca madinatul munawwara assalaamu aleykum ñu ngi leen di nuyu foo leen nekk ci biir Sénégal ak àdduna bu wërngal kàpp ci guddik alxames 17 octobre ati 20 24 ci weeru rakk weeru salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ci réewum Sénégal réewam salawaatullahi wa taslimaatuhu alayhi ñuy julli miliyaaraati jullee ki sëlmal ci moom chef mbindee fi yonent yàlla xaamit salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi di julli miliyaaraati jullee ki sëlmal ci mboolem yonent yeeg anbiyaa yi salawaatu rabbina wasalaamuhu alayhim di ñaanal saxaabaam yu tedd yey milliardaires yi ngërëm ridwanullahi alayhim ajmain 19 direct ci yi islam international xabaari bitim réew yi ci wolof ci yaatal la ci gën a fis wërngalu xabaar yi réewum salawaatu rabbi wasalaamu alayhi buñ fa jógee Kenya daan ci toftal yeneen xabaar xarale gi El Hadj Gamou Ndiaye ñuy gunge. jaa ngeen jëf. gërëm nañu leen si ànd ak ñun islam international ak leeral tout tv international nañu leen ko junje woon ci njaal beenu xabaar yi dañu naan coow wutali réew ma moom sangum nit ak jinne ak malaaka yonent yàlla taha salawatullahi wa taslimatuhu alayhi wa ala alihi wa sahbi ajmain dogal ba nguur ga jël ren daal bëgg ñay xaj si màkka ñu moytu daal ñu màggat lool di ko rax ak it ñu tawat lool loolu daal la màkk bëgg ren ndax xam ngeen ni aj màkk ak daaw ga du ngeen ko fàtte daaw lim ba faatu woon bari na lool ba jéggi dayoo ku nekk nag ak la nga wax ne moo ko waral tàngooru tar doon nañ ko wax ñenn ñuy wax ni wéradi yu bari la en tout cas même Sénégal gi daaw amoon nañu faatu Iran bari le woon lool ak yeneen réew Égypte bari le woon lool ak ñu baree bari ñoom Imaaraat ak gaa yëpp daal ñoo faatu le woon ñu bari màkk nag gis ni màggataay gu ëpp gi daal muy ci soxna yi wala ci góor ñi ak it ñàkk wér gi daal loole buñ ko dakkalee mën naa am daal faatu mu jéggi dayo ma ca mën a wàññiku jërë ngeen jëf ginnaaw lool réewum Kenya seen vice président ba moom day tey ji ko Sénat ba woolu woon waaye avocat am daf ni mënta dem ndax dafa tawat ba sax nekk hôpital moom Rigathi Gachagua gars yi daal ginnaaw bu ñu ko ndëgg sërëxalee ca assemblée national ba mu dem cee cour suprême ba euh, ñooña daal ñoom it euh, rotal ko na ko rutu bëggee Sénat ba daal la ca des fi ne nii te boo moytuwul na ko rutu bëggee lañ koy def muy rotal ko. jërë ngeen jëf ginnaaw loolu leneen lu ñuy wax ci xabaar yi Guinée Conakry ñoom Union européenne euh, daal lebal nañ leen ay koppar ci wàllu am financement boo moo xam ni daal dañu ni wàllum santé ak wàllum assainissement daal la fas yéene jëm ak wàllum euh, loo di ndox maak yu ci aju ca la fas yéene jëm koppar yooyu nag ma nga toll ca cent quatre millions. mais ci xaalisu euro la ko doon ñoom daal ñu jàpp ne loole mën nañ caa kàllaambitu ngir daal mën caa régler seeni mbir yu sew sewaan jërë ngeen jëf meneen réew mooy imaaraat ñoom tamit baaxe nañ Tchad fond bu am doole réewum Tchad soldaari coup d'état yi daal Mohamed Idriss Déby itno coup d'état moo demoon foofe daal ngir daal euh, ñoom Dubai Imaaraat ñu jàppale leen waaye fonds yu Abu Dhabi daal jox nañ leen koppar yu takku ndax daal mat na trois cent milliards ci xaalisu dollar di koppar yu takku di ay junni junni ci ay euh, milliards ci xaalisu CFA loolee nag Tchad jàpp ne xar kanamu réewam mën na caa tàmbalee suppikoo bu baax a baax. leneen loo xam ni dana baax a baax te ñan ko defal di waa Ukraine Norvège réewum Norvège ñoo leen baaxee waaye nag daa bëriwul de si avion yu marque F6 te réewul nag alal ju bëree bari la ndax fafalnaaw yooyu cher lañ marque F6 bokk ci xeeti fafal naaw yi dàq xare dal te lañ leen baaxee 6 juróom-benn dal lañ leen baaxee ministre bu défense bu Ukraine moo ko wax. leneen lu ñuy wax ci lay xabaar dana ci bokk réewum Cambodge ñoom day. seen mbir fi mu ne nii doy na waar ndax dal ay ar na arnaqueur euh, daal ñoo fa nekk ñoo xam daal ay jubadi ak i wuruj ak i njublu ak njubla nga ki luq njuur ak tojaangi ak i njombe la ñuy def daal ca euh, mbaali jokkoye di gilintuk internet ba ca la ñuy nekk daal di jéem a suufu euh, konti xaalisi jàmbur yi di ko wëq daal daal muy mbir mu doy waar moo xam ne fi ne nii police a ngi cay def lu nekk mais daal gaay xereñaay gan ci am jéggi na dayo lii nag du Cambodge dong de Philippines ñu ngi koy jooy Birmanie ñu ngi koy jooy Thaïlande tayit ñu ngi koy jooy muy daal mbir mu doy waar gaaña daal ay nit lan ñoo xam ne ñu ca xereñ lanu nañuy def ba daal bay ruccat xaalis jàmbur yi ak nañuy def bay mën a pirate compte nit ñi fi mu ne ñëpp la loolu jaaxal mais gaay nan ca xereñee jéggi na dayoo muy nag ay euh, arnaqueur euh, en ligne yu xereñ yoo xam daal fi ne nii ñu ngay wëq poosi gaaya lu ca nekk daal ñu buub lépp yóbbu da ngay jékki-jékki xool sa téléphone gaaya abbu la ca nekk te doo ko jotaat abadan jërë ngeen jëf réewum Éthiopie doomi Soudan ya fa daw làqu la leen dal day mett na lool Soudan di nord soldat yi kuritaay daal ñoo fa taal xareb yareediku doore woon ko 15 bu avril bu 2023 ñu bari nag ca waa ma génn daw di làqatu ji am na ñu dem Égypte am ñu dem Tchad am ñu dem Éthiopie waaye ña dem Éthiopie day dafa mel ni mbir mën nar naa doy waar ndax daal ci sud est bu Éthiopie foofa daal ñu bari fa lañ nekk mais foofa jéngumaani Éthiopie ak soldaari Éthiopie ñoo tàmbalee xeexoo fan yi loolu waral Human Rights Watch di ONG bànqaasu ca ONU ni attention xeex booba day bu mënta dakk ñooñee faaw jëlee leen foofu lu ko mooy day seen bakkan mën na caa loru danger ca lañ nekk loolu la Human Rights Watch le te ay junni junni lan de yoo xam ne ñu nga foofee Éthiopie nag seen euh, nguur ga ak seen jéngumaan ya di rébelli Tigré ya si woon nañ ak déggoo ci réew Afrique du Sud 2021 la woon bu ma fàttewul mais daal fi mu ne nii ma tàmbali naa salfaañoo xeex ba léeg-léeg nu jikki-jikki songo Afrique daal daanaka daanaka daanaka féppay tàkk jërë ngeen jëf ginnaaw loolu leneen ñuy wax ci lay xabaar ba tey dana ci bokk euh, réew Mali ñoom te ñooy tàkkale bay jërëx jërëxi ca lañ bokk soldaar yi coup d'état yi nag colonel Assimi Goïta coup d'état day nee na yokkal na boppam daraja def boppam ab général am na yeneen gaay yu mu yokkal ñu dooni colonel ñoom de jóge nañ ca soldaar ja ba ne ca coup ja ak nguuru ga mais terewul ba tey nu nga ñu ngay yokkal seeni bopp seeni daraja yi soldaar daal loolu lañ wax lii nag Goïta coup d'état njëkk ko def de bu ngeen fàttali ko weer yi de xanaa gaaw leen fàtte noonu Dumbuya coup d'état waxoon nañ leen fii ci daar daara islam international ni Dumbuya yaa d'état moom it daal nee na doonatul colonel Mamadou Dumbuya coup d'état waaye léegi général Mamadou Dumbuya coup d'état lay nu ngoo doon booy bi moom it fi mu ne nii moom it nee dootul colonel Assimi Goïta coup d'état mais général Assimi Goïta coup d'état lay doon daara islam international ni woon du ci dal lu dul colonel Assimi Goïta coup d'état ak colonel Mamadou Dumbuya coup d'état du ngeen ko dégg ci ñun ñeneen nag ñoo xam suñu yoon nekku ci suñu bopp rek lañ wax jërë ngeen jëf ginaaw na leen la ñuy wax ci xabaar yi centre Afrique la ñuy centré wu ji réew mooma day am na lu fa xew ñoom it de parce que euh, soldat onusien ya daal la am luñ leen tuumaal takk der ya fa ONU yóbbu ngir ñu dox fa tànki jàmm ak dellu si fa jàmm ndax centre Afrique ñoom it dañoo am jéngumaan de am na ay anti balaka am na yeneen jéngumaan jéngumaanaan daal yu bari ay groupe groupaan yu fay def loxo yu leen neex. motax ñu leen Afrique daanaka fi ay tak rek boo ko da daanaka rek li muy tekki mooy bare bare baree bari bala des bariwul loolu mooy daanaka ñoom ñi ñu ngay tàkkale ñomit mais soldat yi fa dem day lañ leen waxal bu dee dëgg day ñom ñu ngay gëna taal parce que dal bari na lool ca ñom ñu leen ay soxna dal ñoo leen ni dañ leen di fitnal ak dal yeneen mbir yo xamni sharia duñu may ñu fay jall en tout cas dal ay jigen tuumaal nañ leen euh, ni dañ leen fitna fofu lañ mëna yëm wa salam jërë ngeen saay-saay bu màggat ba bay kumur yal na tuskare Joe Biden nga xam ne taxaw sax mën koy kënër kënëri waroon na jéem a góorgóor dugg ci lislaam balaa tuskare mais defu ko ma ngay wone caay-caayam nee naay ma ngay wone mbégteem ca faat ga ñu faat docteur Yahya Assinwar ma nga xam ne ca mois de juillet ba la wuutu woon fadilatu cheikh docteur Ismail Haniya ma Iran invité woon woonu ko ca seenu président buy waat yàccaaral xujuurali bët ban faat ko fa am sax ñu jiiñ Iran yi Iran ñoo tey lii est-ce que du kompaloo ñoog Amérique ñenn ñi ni loolu ku ne wax la neex ñun ñu ne woon ñun de duñ ko tuumaal Iran waaye daal li nga xam ne moom la ñuy wax te kenn mënuñu ko tere wax te dañuy wéy di ak yàccaaral gu ñàkk fayda gu jéggi dayo moom la Iran def nit ku toll noonu foore noonu nga invité ko sa président buy waat di xuluurali bët Israël ñëw dugg ci sa biirum réew faat ko ca biir réew ma loolu sëñ bi gàcce gu bon a bon la amul ku ci mën a layal Iran lay wuñu dégg woo lay bu ñëwee ñu taxa sànni mbalitu mbëbës ma woo lay rek buy agsi rek ñuy taxañ di sànni mbëbës mbalitu mbëbës ma taxañ sax duñ ci fekk dégâts si comme ni gars yi def bal rek lañ koy def ñàkk fayda gu jéggi xanaa ñun réew yi ndaw yi rek duñ ñàkk fayda invité nit di xool ba beneen saay-saay di jóge ci beneen réew di ko rey suñu biirum réew waxuma la yëngu nii ren mu toll ni Iran du ma leen baal loolu mukk baal dinay docteur Ismail Haniya ak niko yalla melal ci ulumul quran ak yenen ulum uluman xam-xam nim ci melon ragal yalla buy jàng alquran di julli tajwid ngay bëgg sey toll fim toll ci wutur ak daraja ñu xullóore li bat ban ray ko seen birum rew ñuy fonto nit ñi naan danañ fay dem di dóor ci àll defé ñun dañ fi nek ay affaire tappale la nit ñi and ñun amul julit amul yéefar mbiri mom deug gi rek deug gi rek deug gi rek loolu ñàkk fayda mënu koo romb bañ na ko ba xarakatu Hamas Qatar lañ ko doon bàyyi muy ëpp lu mu fay nekk réewum Cheikh tamit ngir bëgg rek mu mucc ñu invité ko ban xamee ni mënuñu ko sécuriser luñ koy invité yow yaakaaral ci sa biir capital Téhéran ñu ko fi fekk di ko faat nga ne yow sa président la wax yow ña la def loolu mbaa yow fa ngeen doon waate sax mënuñu ko bombardé far rayaale sax seen président ba ña fa nekk ñëpp sëñ bi caaxaan baaxul. nit bu defee caaxaan dañ ko koy wax am réew bu defee caaxaan dañ koy wax ak président bu defee caaxaan dañ ko koy wax jërë ngeen jëf ginnaaw caay-caay ak Joe Biden googu doomam ju bon ju saay-saay ja moom it wax na Benjamin Netanyahu ma ngay wane mbégteem moom it nee na daal damaa ñëw pour wax leen ni taat nan docteur Yahya Sinwar ki nga xam sunum noon la te moom moo planifié woon ngëj man nu ngëjoon 7 octobre te waa harakatu Hamas ngëjoon ni ko kii moo ko planifié woon saay-saay bu bon bi loolu mu wax dëgg la docteur Yaxya Achinwar bii moom moo tëraloon lépp stratégie pour fayee ko mu 7 octobre képp ku wax ne xarakatu Hamas dañoo song Israël waxoo dëgg da ngay kàcc ak koomanti doon xarakatu Hamas fayu lañ mas def fayu te fayu gi ñuy def sax du mat parce que la leen ñee def mooy ëpp fuuf parce ñee dom ju bon ju say say la bayam bu bon bu say say di dimbali kon fayu rek la harakat yep mas di jema def hizbullah fatha jihad islamic Hamas ñom ñep jema fayu ba ci ansarullah bu yaman ñom ñep jema fayu lañuy def jema fayu ñi toñ ñep xam nañ ko kon buñu ñu kenn kon say say bon bi li wax deug la ndax sinwar borom bi dafa dogal mu xereñ lol lool lool lool ci wàllu xare ak stratégie de guerre yàlla da ko cee mayoon lool ba bi mu doonee shahid tey Israël lan def mooy bombardé am taax mu wàcc ci kawam image yi am nañ ko mais yooyu image yi mënuñu ko wone loolu rek moom la def comme na muy def di di bombardé kër ragal ragali ñàkk jom yooyu yebal ay drone yu kenn du nekk muy bombardé ay kër jàmbur loolu rek lañ def de duñ taxaw mukk jàkkaarloo lu dul ñu ngay làqatu ci ginnaaw yu miir rek di wasatiku ak a ka tappale comme ni ko alxuraan misaale nee na chinois bii moo leen yóbbee ñu faatale junneeg ñaari téeméer ci civil ak soldaar yu bari keroog 7 octobre loolu mu def nag xam leen ni ndam lu rëy rëy la cay am ca kanam yàlla Israël moom ray leen jaamu yàlla gu màgg màgg màgg la la docteur Sinwar def bisu keroog jaamu yàlla gu màgg a màgg màgg la dafa bokk ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla gën a kawe mooy rey noonu yàlla yi ak noonu lislaam yi ak noonu jullit yi loolu ci jaamu yàlla yu kawe yi la bokk. baay ak doom ju bon ji sax woowante nañ téléphone doon wax ci mbir mi ci faat gin faat docteur Yahya As-Sinwar rahimahullahu taala leer na nañ ñi ni faatu na sikki sàkk amatu ci fan yii nag dégg naa ay nit di wax naan euh, imaam Xasan Nasrallah est-ce que faatu na gisuñu fenn ñu denc ko nangam nangam nu ngeen koy gisee am na loo xam daal man damaa xamul ñi leen koy wax xawma dañoo amul xel wala ñeen koy wax ñoo dul déglu yéen moom mën naa dem di def réunion Israël song foofa faat ko fa faat fa ñeneen ñu koy denc di dajale mbooloo buñ ko defee Israël bombardé waat foofa nag yéen xanaa da ngeen di xaru xisbullah fi mu ne xalaat nañ di dajale seen kàngam yëpp ci am mbooloo ñu naan dañuy denc imaam xasan nasrallah ñoom nañuy def ba denc ko am xam nañ ko dañoo dajale woon di réunion ñu bombardé ba faat seen jiit léegi bu ñu demee dajaloo waan naan dañ koy denci Israël seen rangement seen rooy yi nga xam ne fexe nañ ba nekk biir Liban biir Iran ñu jox leen loolu ñu bombardé foofa léegi faat nit ñi nag sëñ bi nit day jëfandikoo xelam. doomi boppam ju jigéen génn na wax ni baayam faatu na ni waaye tey lañ gën a taxaw pour jàkkaarloog noonu yi xanaa doomam moom xam ne bàyyam faatu na am de te kooka magum jëmm la bu amul borom kërit mat na ko am sëkk. nañuy ŋàññi Israël nañ koy wax lépp luñ ko bëgg a wax mais bu ñuy wax nañ wax dëgg rek l'islam moom ay fen ci boppam la l'islam bëggul ab jullit booy wax da ngay wax dëgg ak bañ di gëmloo nit ñi lu nekkul bis bu set li ngeen ñuy dégg ñun ñu koy wax mooy jéema a fayu mais xam ngeen ni Israël ak ngànnaay yi ko Amérique di jox kuréel yooyu lu mu góorgóorlu góorgóorlu moo leen di ëpp doole ñee ndimbalul yàlla lañ àndal ak ngëm yàlla gi ak njàmbaar gi waaye ku nekk xam na ni Amérique mi man ci àdduna bi di la joxe ngànnaay naan la rayal ma ñoom diw lun ñooñe lu mu góorgóorlu góorgóorlu yàlla ndiman man man leen man du ngóor bu doon Israël kese kese kese ak jubbu boppam lii di xew du xew waaye Amérique ay batu lay duy ay ngànnaay di ko jox léegi loolu ku ci man dara fi mu ne nii lu mat deux cent mille ñaari téeméeri junni ci ay doomi Palestine yoo xam ne jafe-jafe ndox lekk ak naan fi mu ne nii am nañ ko ngir bombardement yu jéggi dayo yi nga xam ni Israël mi ngi koy bombardé bande Gaza muy mbir yu tiis a tiis terewul nag ñoom noonu yàlla yal na yàlla alal leen lii sax ñoo ko waxal seen bopp nee nañ seen juróomi soldaar dee nañ fekk ña deewoon waxuñu ñaar wala ñett nag fee waaye daal danni ñenn ña ca Liban lañ faatoo ca xeex ba ñenn ñi ca bande Gaza noonu daal lañ wax en tout cas nee nañ cinq lan yu faatu ñee Liban ñee bande Gaza yemunu ca nee nañ am nañ huit yuñ blessé te blessure yu métti métti la lii ñu wax nii Israël moo ko waxal boppam lii ñuy waaj a wax nii xisbullah ñoom ñoo ko wax xisbullah ñoom nee nañ ban tàmbalee di ak Israël ak léegi Israël perte na maanaam rayal nañ ko ñoom juróom fukki soldaar ak juróom na xama 55 lañ wax lu war a mat juróom fukki ak juróom daal ak lu ëpp 500 yu nu blessé nee nañ ñenn ña ay officier lañ ñenn ña ay soldaar simple loolu moom waa Hizbullah ñoo ko wax yal na yàlla dimbali mujahidun yu Liban ak yu Yaman ak yu Palestine ñoom ñëpp te alak Israël dimbali jullit ñi ñu ngi ci guddi yu metti guddi yu tàng boo xoolee docteur Ismail Haniya ak Yaxya Sinwar bi ak Saalixul Ar Saalixul Aruri imam Xasan Nasrallah ak ñeneen ci sun kàngam yi ci diir bu gàtt ñoom ñooñu ñëpp lañ leen faat ci diir boo xam ne yàggul ñuy ay ndànjaama di jàmbaar waaye nag minal mumini minal mumini rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir man yantazir mooy comme man mi ak ñi mel ni man wa ma baddalu tabdila en tout cas daal kenn mënta fexe ba doo faatu kon nag faatu ku ko mën a def ci lislaam alhamdulillah sayidna xaalid ibnul walid ba mu tolloo ca di waaj a faatu dafa am lu ko naqari nee na li ma bokk ci xasawaat ci xare ànd ak salaa sallam ak saxaabal kiraam di xare ridwanullahi alayhim ajmain sama yaram wi daanaka espace boo xool xeej bun jam wala jaasi ju gore liggéey yaa ngi ci fees dell waaye maa ngi nii tey di waaj a faatu waaye cib lan laay faatu awma awma maanaam maqaamam shahid faatuwuma ci toolu xare te loolu rek laa bëggoon mébétoon ko gis nga suñ borom am na yeneen saxaaba yoo xam ne borom bi wërsëgali na leen ko ñu mel ni Seydina Hamza ak ñu dul ñoom Seydina Musab ibnu Umayrin ak ñu dul ñoom waaye moom borom bi wërsëgali wu ko ak Seydina Xaalid nim mu jàmbaaree woon imam ali yàlla wërsegal wu ko waaye moom sax man nga ni amna maqam maqamam ndax dimul xare waye fat nañ ko sayyidna umar naka noonu nekul dafa dimon xare xex ni me bet nañ leen fatlin sayyidna usman Ousmane kazalik kon l'islam mom yàgg naa dund ay mitit ak tartar waye li am solo rek mooy sunu shuhadaaw yi aljana lañ jëm ñom yefari yi lañ jëm mbir mi dal lu metti metti xaaral fofu mbir mi rek moom ku faatu ci Palestine aljanna ku faatu Israël sawara TV international am mbir mu bees léegi léegi lañ ko jël seggi xibaar saytu ko door a jàllale amul ci kat moroom bu leen di dendale fu mu mën a nekk lum sori ñu daal dem jëli xibaar bi léegi léegi def ko bëm Leeraltu TV international abonné partagé tey aimé